asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñu ngi leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam seen mbokk seen xarit seen soppe di koy wax sëriñ Aly Sy dëkk fii ci Tiwaawan doom ci alhaaji Malick Sy ay kàddu yu néew ci bis bi waaw am mbégte rek mbégte moo xam ne am na fu mu commencé mais amul fu mu yem ndax gaaw ñu wuy muy sant yàlla d'abord bis bi muy bis boo xam ne bis bu ñu bàyyi xel la ah tabarakallaahu damay gën ñi fi teew yëpp nag ci ku ci nekk ci turam ak santam di commencé ki nuyoo bi suñu xalif général di Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ko ñaanal yàlla yàlla guddal ay fanam yokk ay wéram di jotal nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Abdoul Aziz Al Amin tabarakallaahu suñu sëriñ di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér moom ak ay rakkam mën naa wax na nag Tiwaawan gépp teew nañu njaboot gi yëpp teew nañu famille bi yëpp teew nañu yéen xam ngeen ci dara woote mu ñu wuy la nag amul lu ko gën bokk nag ci ndam muy engagement boo xam ne dañ ko jël jàppale président Macky Sall jàppale boo xam ne dañ ci am ndigal ndigal moo waral ñu woote ñu bis bii dafee ko fii ci Tiwaawan nit ñi wuy suñu te ku nekk sa yéene woon am nga yaa amoon nga yéene mel nii waaye tabaarakallaahu ci ñun la ko yàlla dogalee jaar la ko si ñun ñu ànd ak suñuy soxna ànd ak suñuy cousin ànd ak suñuy frère ànd ak suñuy mbokk suñuy soppe suñuy xarit Cheikh Ahmed Tidiane Sy Amine mi ngi nii xam naa discours français bi moom moo koy waxtaane tabaarakallaahu ndax ku nekk ak cëram muy sama xarit di sama lépp di bokk tabaarakallaahu ci mouvement bi. waaw gis yow xaritu Macky Sall nga président lamb ji am na difficulté ak sport yëpp kàddu nga koy dénk pour mu jàppale euh, tàggat yaram beeg rafet lamb ji. waaw mais yéen xam ngeen ne président loolu bàyyi na ko xel barki dem la pose première pierre bi arène nationale bi te loolu ku ne jaar na fi te amu ko su ko yàlla jaaralee ci moom sant yàlla la ndax du ñëpp bëggoon mu taxawee ko ne leen nag na fexe ba mu am 12 mois. ah tabarakallaahu loolu xel mu dal la ci président la république kon ngeen xam ne sport bi bi nga koy bàyyi xel démb parce que lundi passé la pose premier père tey ne basket bi fii ci jam ñaajo di deuxième génération bi muy loo xam ne aussi yéen bàyyi ngeen xel yéen presse bi donc muy loo xam ne nii li ñu bëgg mi ngi ci moom président Macky Sall fas yéene koo jàppale ñaanal ko ba fu mu jëm àgg fa incha allah. am nañu yaakaar pour waaw loolu mi ngi ci commencé na ko commencé na ko ndax damay wax ne ku la jox ndékki jox la añ boo nee toog xaar Macky Sall bi maa ngi dem ñoo jox moo tax ñu bàyyi xel loolu. naxaat amatu fi xewi na ku ne yeewu ku ne yeewu nga moo tax ñu jël engagement bi jël mouvement de soutien tànn Tivaouane ànd jukkeel ci ngor jël bis bi sal sargale ko président Macky Sall ndam li nga xamee ne amee na ko ci référendum bi tabarakallah jërëjëf salaamaaleykum waaw man la Sakho production euh, dëkk Tivaouane département bu Tivaouane dëkk kër Baba Alima waaw fas yéene continuer lii may def muy nekk promoteur bon di ñaan yàlla jàpp ñu si ñun waa Sakku production yu ñëpp bii mooy suñu troisième journée drapeau ADISI wax dëgg yàlla gis nga stade bi ni mel fees na dell ñëpp wuyu si nañ ñu Thiès kenn desul Tivaouane kenn desul région de Thiès bépp laay wax kenn desul rawatina kër Baba Alima bi nga xam ne foofu laa juddoo rawatina dakaar gi nga xam ne fa laa nekk muy Cambérène ñoom ñëpp topp nañ sama ginaaw ñëw wuy si ma fii si diggante Kung Laaw ak mbul bu Tiwaawan. waa li ma dugal si làmb mooy man bi ma nekkee xale ba léegi dama bëgg làmb mbër laa woon sama maam mooy saaku ñambi ma tuddoon saaku ñambi topp làmb ji fu ne may dem di bëre ay mbapat euh, ba dem ba sama temps mayatuma may bëre mais dama bëgg làmb loolu moom ma dugal si làmb ma mujj ma tourné di nekk euh, wut carte promoteur nekk promoteur pour di tëgg làmb benn village bu naan Kër Baaba Ali ma nekk laa jëkk commencé dafa def ay mbapat mbapat boo xamante ni dafa daan am service d'or waa GNC waa bu Tivaouane ñëpp ñëw loolu man rek maa ko commencé def ci département bu Tivaouane bii ba am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi may roy si yoolu ren nag yàlla dimbali ma euh, ma mani naa dem si frappe bi bii mooy sama troisième journée bu dee frappe waaye nag metti na torop parce que dañu bëgg sponsor trois journées yëpp mënu ma ni benn sponsor moo may jàppale xanaa comme par ñi nga xam ne ñoom lay tudde drapeau yi ku mel ni suñu arrégime yi sonn na si torop wax dëgg yàlla jàppale na ma torop torop bu baax a baax a baax ñu ngi woo sponsor yi nag di wax ni Tiwaawan wax dëgg yàlla dafa bokk si làmb parce que sama maam bi naan saako ñaam bi fii la daan takkee ngemb di taalibe sëñ Babacar Si euh, dem ba yàlla moom ko si toolu xare kon nag ñun dañoo bokk si làmb bon sponsors yi ak autorités yi nan ñu gëstu ñëw jàppale waa Sakho production parce que lañuy def pour gox bi yëpp pour gox bi rek la parce que ngeen fi li fi nekk si ay mbër rek chaque mois ma dajale fi lu mel nii ñoom ñëpp ñu bëre ku si nekk ma yëkkati dara am jox la si sama doole kon boog maa ngi woo sponsors yi di woo autorités yëpp. sëñ euh, promoteur euh, nekk naa ko. 2012 2012 laa commencé tëgg ay mbapat mais booba carte promoteur bi ma amoon licence Fra kii carte simple la woon mais ren laa wut frappe bi pour commencer di tëgg bëre dóor. lan mooy ñëw. sama programme bi di ñëw bëgg nañ si balay si koor gi ñu taxawal ay combat yu mag tëjee ko suñu saison ba déwénati ja muy suñu quatrième journée incha allahu mais ñu ngi si woo sponsor yi pour ñu ñëw jàpp ñu si loolu noonu. parce que wax dëgg yàlla affaire yi métti na te seen ngeen nii nit ñi mel nii ñii bëgg nañ làmb te gis ñu ku leen tëggal làmb man loolu rek moo tax ma koy jaayante nii di wut ku nu jàpp la nag bu baax bëgg nañ sponsor wu suñu ak autorité yi